برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجا جخن نينام مسلم في النصر سبقا wajjab taxaru jamaat si di baarama may wala hen baara jël kamula wabbu saan tënga soodaan si di baarama halam banga boog ku fa dellu yéen ndaw la wéri dabal maa ngi kàmba soodaan baarama sodam Sidi Barata Majma Barai Bahamai Lebu Bangulan Budu Sahan Sudan Sidi Barata Jawab Pelan Pesalai Anda Dekulo Sudan Pesadilo Pusa Sudan Sidi Barata Majma Barai Bahamai Lebu Bangulan Budu Sahan Sudan Sidi Barata Aku yakin Basamiu Barama Abdul Qadir Jailani yu Baghdad ko jas mu gàkko fekk ndax daan gaañe baaram ay ba day min baaram ay bee ba mu laan bu samaan bu ñu solaan jële baaram ku ma wekkee am na rakka pol warloon naa nga xal ko daa nga trop ki ma borom si di baaram ay ba day min baaram ay bee ba mu laan bu samaan wallum nanga xam tu banga toog gën xorom sëñ bi baa

ku sa sàpp su ko sa jëmi ali yàlla bu ñu réew kaamil si ni bara amma Antaw hay na si mahjub gani bara amma jàpp ni ñam jurbel yi polee duman doxlu rosi xawmanoo jeex si di bara amma man noolaay ni bara man feebi bangula wabbi samaan fay rasulaan si di bara amma ka metti ee antala taxin wa sawaan merbaan dem sa biiba dawa téléphone si di bara amma man noolaay ni bara man feebi bangula wabbi samaan fay rasulaan si di bara balaa ñaaw ndax kaaw yaa kay ma demal kay bi malaaka ya soxla naa leen si li ba wàcc sandal muuri dal di soufflé tanaan bu ñu dee si baaraam sandar moori jóg di rappel ba leen dem soxla nañ leen nañ baaraam may door ba leen di baaraam may génn ba ko daal la gën a xëy bu wàcci rusi te na sambal si di ba ama malaaka ya forcé am taw ya fàtte leen ñu jeex te xam malaaka day bëri niw gañi ba ama Barama seen fajar ga sullut di gën dem a jeex bala gado kiman gaye bara amma Allah bare bara ba gele babala obo zaman le bara dire amma bari majme mara kaya kaju suf se jalayo kerat mangai halam wan lo gaye bara amma Allah bare bara ba gele babala obo zaman le bara wedd suñu baay si di ma am manoo bare ma may dégg bàkkuna wër ko saman rajo sodaan si di ma am maanaam rey mi ne mu ko sàngoo yiram naa suru gi borom bëtu génn way noon kañi ma am manoo bare ma may dégg bàkkuna la dingat xal bu ku la def mas génn mbooloom si di maama mbool bari baraam ay génn ba pulaam won ko samaan lañ la soldaat si di maama rek bu metteem dox na futu askan dafay xalaat jaam looloo ji koy gañi weddi si di maama man mbool bari baraam ay génn ba pulaam won ko samaan lañ la soldaat si di maama wax ju bari ju jamoot ci posal la ci jaam kañaan bu rëy bu jom xala bu noonee ba xamaa Subhanallah tan toppandoo sama soo xamul yàlla jëfam ne la gaañe barahama يا نبي بجهر الرحمن سيدي fekkee da ngay sa xel laa guddi yaa keloo ya dengoo sini ba am naa bu ñu fasee ji la ko sëriñ aju me so. Kaplan Kaplan Abdul Rasul tijaan ñëw na suuna sidi ma hamma baraya bi sango pan mandi ndingere mandi kuloriri lakki wayrum sidi ma hamma dambi wuute dal si géej gi xal fuude yi soodaan mor bu mag bi tàmm nga maal sidi baarama sa njaboot gi nga sangal pal man bi andi ngeleen man li ëllu ci ndéf ca lañ xala ko sidi baar ba ñuy miraas seen baay wuba barama nga seen bii sidi mu waral leen naan jóg leen bon ñu dem ca xaadir yu ma ndax lu lay ndigal jóg leen dooni baa ma dajee génn góor mu ne leen sama gëlëm lay wut waaw bi ne ko bàyyi xaajoo na ñoom moom buur ga da koo bàyyi moom la Sidi Barama xanaaral ko yow bilam bu kenn ko doon ko ñuy laaj buur ga da koo bàyyi moom la Sidi Barama Ilias Ngoon yow bilam bu nu coom ku bay moom la gayba amma xaati jàppandan de mu nar yow gëlëm ma gurgur gur du wax ne tuuti day soox si di bara mu nar ay bara ñetti tànk yi moo jam ci si moo ma wax ne jur gi day soox si di bara amma xaati jàppandan de rabbi gëlëm ma góor gu lu la wax bët la sidi baaraam rabee ma ne gëlëm ak ñaari bët buy lekk ci benn boor yoon ci ñaari boor yoon lay for sidi baaraam ma ne wax ne maa ne gem gu am geen bu neefaree ci moom lu koy jur mooma wax ne gem ba daa de Iliya sew dina gëlëm bu yaatoo dugg du tànk mooma jaf waxaat mooma woon ne dafa rëccoon sidi baba xaati tàkko naan ne yile gaay dañ nga borom ni këss waaye gisuñu sa jëlem gi sidi baba booba lañ doon dalal rayal leen gàtt sarwe leen naan dal di jënd yi nguruy jox leen gaañi baba gaaña lekk ba pare koo buur ga da ko jaaraamaan jërëjëf ndax ñu neex na Sidi Bara Amma mooran dee neex na waaye gàtt bi ñu royal dafa namp neewam kalbu Sidi Bara Amma rafet ko na ngal gi dee neex na waaye nan gi ñu sar dafa sabab loo ci xarmal Sidi Bara Amma waaye nguur nañ ni sarwi ko doon travailler la abut sidi bara amaat Ilias moom dafa wax pej toj lu lu ñu la man sali ba koy wax borom dafa lampu kalbu Sini bara gor ga dal di wax ko dem ci borom gatt wa nan ko wax ma ga o mana gatt bu no mu deme sama bi bayo kalbu jaharnan Sini para amal Raga penanting konani Nyeram yang ditis Memanggur kepunyanya Sini amal amma Nah Dafai bindi kayal Kandi amal Beram sawar lodo waktu Bani para amal Berkata diwaku dan keberongan

sondal gàññi ba nga am maanaam góor ga dal di waaku dem ca borom tuuba ñan ko wax ma gaaw samburu moomu na mu demee si li ba nga am maanaam góor daan ko naan maanaam sama tuur bi jigéen a cay liggéey dama lekk ko na mu demee si li ba nga am maanaam moom maa ngi ci tiis maa ngi séntu dem ca xaybu si bi amal xaati jug leen boo miraas seen baay yi ne ci ngi xel mu baat si bi amal tub leen te dërbiyu ana wàcc soodaan li ma amoon a fasaleen àddina bëgg yàlla bañ a roog baay si xuuda seen rabbi mooy si li ma amoon a yàlla daj baggu lislaam bi jébbal ko baraama tijji nambi leeri jébbal ma amoon na yàlla mi daan yónni yónni tut waaw waaw jumam jafi teew haqi yoonu sodan sidi ma amoon na ngay buy xàll ma ba doom yaa tax maari simul

أي خمسي أهباو مخرج بدوما سيدي برقما دقلا دقلا دقلا لكن لما تمام يا عند قول دقلا حارس مولان جبريل تحل لكر محمود سيدي برقما مكان لما فتن بو عند حارس مولان يلا وقت ومتنا دقلا sidi bara amoon mahjubi def ngeen ndoxam isaas bi ma fayee daay dafay yokku daay ba doole sidi bara amoon mahjubi def ngeen ndoxam isaas bi ma fayee alayhi hokkuɗa e goɗɗo one wallahi wonde sidi fara amuna massubu ndaw wallumɗa bela e jaali sagayna e majjudi wattulan ɗongoy sidi fara amana bayalla e ɓir sidi barhama fammul gotum mala gotum ko fette wuɗon ɓurni titi sidi fara amuna بلا سخلا فرد جامع بدوماس سيدي بابا إبراهيم جوب سنتر كيلا روسي بلا سخلا فرد جامع بدوماس سيدي بابا قاتلنا بقلم سيدنا نسوكر كبير ميو إبراهيم جوب تقل مصبايك

lay yëngu gandax kanaan labbayka barham wal arda xalanaa Carlos. ma ñoɓay sidi bara amuna sunannan fon arab mbama sellena walli ɓay ɗon ɗuɗon susittatton hasanan sidi bara amuna sunannan fon arab mbama sellena walli ɓay ɗon ɗuɗon susittatton hasanan sidi bara amuna kabay tumon depasse no jinnu kurbu